benn dilemme d'abord di insister que encore une fois pression taxul président la république jël dogal bi mu jël. d'accord ça ku xam maa ngi ñëw ku xam président xam ne pression taxul mu def li muy def. APR bu ñu koy créer dañuy démissionner de tous nos mandats électifs et nominatifs. à part contexte naufrage du Joola loolu guléet la mosu am. on a fait quatre-vingt-dix mille kilomètres. pour gagner démocratiquement am projet de société sénégalaise ànd ci. leneen li mooy 2012 dañu waxoon ne président Abdoulaye du bokk. mais lu conseil constitutionnel dogal ci loolu lañuy ànd en tant que républicain et légaliste. conseil constitutionnel bi mu jëlee dogal ñun kese ñun képp ñun dong ñoo génn place de l'Obélisque dem battre campagne. d'accord logique pour logique. d'accord li ma waxoon aussi je le maintiens. du constitution moo ci ñàkk ànd. du conseil constitutionnel moo moo ci ànd parce que àtte na ba pare. non te fi ñu toll. même avec le gaz et le pétrole nga xam malédiction la dëkk yu bari. Mm-hmm. ex tey bu ñu defoon appel à candidature président Macky Sall ko xëccoog moom perte. Pape Moussa am na lu mu ci wax du tuuti la ci wax ci jaar-jaaram ci wàllu état ak ci wàllu politique donc fi mu tollut en maturité amul leneen même en morale sax da ngay wax ne sëñ Assane Badago suba nga xam da nga juum war a considérer sa position boo bëggee dara yoon àndu ci mënuloo ci dara parce que à l'impossible nul n'est tenu mm-hmm. et personne n'est de la loi donc pression taxul tey ñun bettuñu buñ bu woon bu bokk d'accord mais li mu wax dëgg la li Assane wax aussi dëgg la man ko maag moom ak sama xarit may sa mayakoor kese mun nañu du ma bokk. d' accord donc na leen loolu wax na ko. donc ñun ñun mosul wax kenn day bokk bindoon na ko ci livre am wax ko. mais tey fi àddina toll ci wàllu kaaraange wàllu découverte pétrole et gazière expérience am parcours am trajectoire am fi émergence bi toll may ba ñu ak fi réew mi toll ci jàmm ci yokkuteeg ñaataar gi ci pàcc yépp bu ñuy sañoon mu bokk.